Jeudi 13 euh, février 2020, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission La Grande Interview de Sénégal 7. Vous qui nous suivez, votre site Facebook Sénégal 7 ou bien sur euh, YouTube Sénégal 7 TV. Bonsoir à toutes et à tous. Dalen ak jàmm ci seen émission La Grande Interview bu Sénégal 7 comme ni ñu koy defee saa su ne La Grande Interview day ànd ak ak benn euh, nit koo xam ne rek itam màcc na si wàllum taxawaayum réewum Sénégal loolu moo tax tey jii nag maa ngi am mbégte ak kontaante di dalal kii di aljuma Sow féetoo foofule si parti PASTEF yor fa nomba tànk di chargé des élections bu parti PASTEF bokk aussi si membre du bureau du coordination de la section communale de Somone salaamaaleykum monsieur Aldiouma Sow. maa ngi lay nuyu di la jaajëfal ci invitation bi. maa ngi nuyu aussi euh, bépp sénégalais boo xam ne moo ngi seetaan émission bi euh, mu nekk ci biir réew mi wala mu nekk bitim réew di ñaan euh, yàlla waxtaan wi nga xam ne sumb nañ ko mu amal njëriñ askan wi waaw euh, monsieur Sow euh, ñu dugg rek suñu vif du sujet mu ñeel euh, seen actualité parti di mbirum 94 milliards de francs CFA mu nekk benn série boo xam ne doxoon na si diggante seen njiitum parti di Ousmane Sonko ak kii di nekkoon fii directeur bu impôt et domaine di Mamour jàlloo si mbirum malversation ak luubal lii di alali askan bi dafa mel ni procureur bu Sénégal Bassirou Gueye yi moom dafa na fas yéene rek classé dossier bi mu nekk sans suite ndaxte moom dafa jàpp ne kii di Ousmane Sonko il n'est pas habilité mu indi euh, mu porter plante yow en tant que membre du PASTEF euh, noo jàngatee bile mbir euh, bett na la wala yaakaar nga ne woon procureur dina saisir aussi bile dossier. waaw li ñuy njëkk a def rek mooy peut-être ñàkk rafetlu li nga xam ne gis nañ ko. Euh, parce que yaakaar naa euh, sénégalais yi bëri ci presse bi lañu nemmeeku lu mel noonu euh, te ñun ñu jàpp ne yëf yi sérier na xeetu sérieux boo xam ne moo taxoon ñun ñu déposer ay plainte benn bi ñu déposer ko ci bureau procureur yeneen yi ñu déposer ko ci bureau juge d'instruction ñu jàpp ne du ci presse bi la ñu war a informer yu mel noonu moo tax sax dama waxoon ne puisque ñun dañu déposer ay plainte dañuy xaar ba jot notification moom procureur bi biral ne classé na dossier bi sans suite wala ñu jot euh, ndogal bu mel noonu bu jóge ci juge d'instruction bi ñu daaj ñu doot cee àddu waaye ak lu mënti doon euh, bu doxalee noonu euh, dina def doxalin boo xam ne méngootul ak méngoowul ak ni yoon di doxee parce que li nga xam ne président Ousmane Sonko def na ko sorewul ak li nga xam ne ndaw mbuur yooyu nga xam ne ñoo ngi ci collectif mbuur Justice Euh, moom la ñu def c'est la même chose parce que ci ñaari kaay yëpp euh, li ñuy défendre mooy intérêt public mooy fexe ba ñàkk moomeelu askan bi ba ay samba booy bañ cee teg seen loxo di ci def naka sudul noonu euh, ma jàpp ne ci wàllu hiérarchie wala ci wàllu degré procureur de la république moo xaw a féete kaw lii di tribunal d'instance bu mbuur ñu jàpp ne bu demee bu ñu demee ba tribunal d'instance du Mbour mu dëggal. Euh, waa ndaw Mbour justice euh, nangul leen ne ñoom am nañu intérêt à agir pour défendre seeni seeni seeni seen seen place publique euh, ci contexte boobu bu procureur ne Ousmane Sonko amul intérêt à agir pour défendre les ressources publiques loolu day nekk loo xam ne dafa nekk en déphasage avec la marche de la avant même ay ndaw Mbour justice di ko def déjà en 2009 en France. la cour de cassation euh, wane na ne que les associations ont droit à agir pour défendre des intérêts ou bien des principes qui figurent dans l'objet de leur association. D'accord. Donc euh... déjà en 2009, il y avait une jurisprudence ki montrait que citoyen boo xam ne gis na ne que am na un gouvernant wala un administrateur euh, muy muy def ay xeetu doxalin yoo xam ne ci ressources publiques yi maase wut ak yoon yoon may na la nga saisir yoon pour Euh, demander à ce que justice soit faite donc bu procureur doxalee noonu euh, day doon loo xam ne vraiment maase maase tul ak ni nga xam ne noonu la yoon di doxee ak fi jurisprudence toll ak fi doctrine toll ci wàllu woowu. d'accord euh, si euh, défendre euh, intérêt yooyu la kii sax euh, di maître El Hadj Diouf nga xam ne moo nekk euh, avocat défense kii di Mamour Diallo moom dafa tuddee affaire boobu affaire de quatorze quatre-vingt-quatorze milliards derrière le rideau parce que réal derrière le rideau réalisé par Shepherd Proto Sénégal mu nekk benn film boo xam ne rek dañu wane kii nga xam ne di Ousmane Sonko di seen njiit nga xam ne moo yëkkati bii affaire affaires nu mu rek taqi rip bii lee mbir ndaxte moom dafa bëggoon am si mbir mi onze milliards de francs fa waaw xam nga euh, dossier boobu daf ci am loo xam ne ça relève euh, de de la de la justice maanaam c'est juridique c'est c'est c'est vraiment du pur droit c'est c'est c'est de la c'est ça relève c'est du point de vue technique ça relève vraiment du droit am ci loo xam ne sa relève de l'ordre de la communication de la manipulation de la propagande. waaw Mercalex film boobu bi ñu wax nag Thalès wax ne Ousmane Sonko moo ko créé juste rek euh, pour euh, lëndëmal nit ñi. yaakaar naa loolu. Mhm. ñun àddunañ ci ba fi ñu toll nii boo xoolee dans le débat public amatul kenn koo xam ne moo ngi naatable ne que Mercalex ak Ousmane Sonko amuñu benn lien damay fàttali sénégalais yi ne bi euh, biñ koy créé c'était en 2014 2014 boobu Ousmane Sonko était déjà était encore fonctionnaire. mais. mais les gens disent que société bi société écran la kii di Ousmane Sonko moo ko créé mbubboo parti Pastefam pour gën a am visibilité ci mbir bi. mais loolu mënut a nekk société écran dans la mesure où Ousmane ci moom Mercalès ginnaaw bi Ousmane Sonko génne bi ñu rajee Ousmane Sonko fonction publique en 2016 ci la xamanteeg kooku ñuy woowee Ismaïla Ba donc koo xam ne yow xam nga ko gannaaw ba mu créé sa société en 2014 foofu société d'écran mënu fa nekk. am na ci loo xam ne Ousmane Sonko wax na ko ci amul kenn ku ko mën a teggi parce que euh, ki nga xam ne moo boole Ousmane Sonko ak famille boobu c'est Ismaïla Ba ba ñu tàmbalee Ousmane Sonko bi mu demee ba xam ne kat ñi mu sekkal yëf yi ñoom bëgguñu mu leer ci yoon te yaakaar naa temps bi moo ngi koy jox dëgg ci la woo Ismaïla Ba ginnaaw bi kooku recevoir famille yooyu. mu ne ko dama bëgg nga taal sa téléphone def ko haut-parleur parce que li may wax damaa bëgg ñooñu ñëw fa ñu xam ko mu xamal leen ne carrément ni dossier bi dossier yoon la puisque dossier yoon la te ki ma ko sekkal politique la man damaa bëgg ngeen génn ma ci ba mu set wécc yaakaar naa loolu sénégalais tey ñëpp xam nañ ne am na yu bëri yoo xam ne wax nañ ko ci lalawul ci yoon leneen li ci am mooy mooy li nga xam ne moo moo ciy dëgg te kenn mënu koo werante te mu doon loo xam ne du Ousmane Sonko ko wax mooy yoon moo ko wax yoon moo ne ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñu taqal ci yëf yi amuñu ci droit loi bi nga xam ne moom moo moo moo tënk affaire expropriation pour cause d'utilité publique xamal na leen ne intermédiation mënta am ci opération yi mel noonu tribunal ñëw àddu ci ñaari yoon xamal leen aussi ci ñaari ndogal ne ñoom loolu nga xam ne def nañ ko dëppootul ak yoon bi ñu yóbboo yëfi assemblée nationale tamit ñëpp gis nañ li nga xam ne mooy rapport ba fa jib rapport bi li mu wane mooy li Ousmane Sonko tuumal Mamour Diallo ak Tahirou Sarr ci affaire 94 milliards yi dëgg la donc nga gis ne non seulement loi bi jox na ko dëgg. justice jox na ko dëgg mais même ñi nga xam ne ñooy farandoowu Mamour Diallo ak Tahirou Sarr jox nañ ko dëgg ci ci ci rapport boobu nga xam ne. mais nit ñi ñoom dañoo jàpp ne kii di Ousmane Sonko amul euh, benn preuve si lu muy wax apparemment c'est juste euh, pour euh, attiser rek l'attention si moom ak tamit récupérer onze milliards yi nga xam ne perte na ko gannaaw ba deal bi éclaté. preuve manta weesu nga génn loi ne article 30 bu loi bi nee na intermédiation manta am preuve manta weesu aussi nga génn ñaari décision de xamal ne ba ñu yeboo yëfi yoon yoon dafa ne lii mënut a nekk preuve manta weesu aussi ñu génn les deux actes d'acquiescement yi nga xam ne kii di Mamour Diallo moo ngi nangu ci biir acte d'acquiescement yooyu ne ameel na famille bii di Ndoye et consort plus de 94 milliards donc bu fekkee preuve la ñuy laaj yaakaar naa am nañ ko à suffisance moo ngi ci internet bi li nga xam ne lépp moo jëm ci wàllu Mercalès ki ko moom ki turam ki ci turam nekk ak ki ci turam nekkul yaakaar naa képp ku jëm ci internet bi di ko ci am ah fi ñu toll nag mu des nag yoon def liggéeyam. yaakaar naa tey procureur euh, classé euh, dossier bi sans suite yéen lan moo nekk seen euh, prochaine seen prochaine étape da bàyyi mbir mi noonu mu sedd wala fas yéene ngeen dem ak moom ba affaire bi ñu yóbbu ko audience. waaw li ma la mënti wax mooy ci loolu mën a guma cee addu ñoo ngi xaar véritablement. ba gis ba ñu notifier ñu ci décision de classement sans suite euh, bu buñ ci buñ ci jotee dinañu waxtaan ak suñuy avocat ki nga xam ne moom moo yor yëfi ci wàllu ci wàllu ci ci wàllu wi muy le président Ousmane Sonko ak i avocat am bu ñu ci tolloo dina taxaw xamal sénégalais yi yan lan la ñu namm def pour que yëfi mu daal di sotti parce que tamit fi nga xam ne fa laa bëggoon a daanele mooy il faut que yëf yi xam ne fi mu nekk nii usman Sonko lam ci waroon def lu ci bëri def na ko ci parce que la nga xam ne moom la ci xeex xeexalu ko boppam parce que ce en jeu ce sont les ressources publiques ci contexte boo xam ne Sonacos dafa am ay problème ci contexte boo xam ne enseignants yaa ngi grève ci contexte yoo xam ne jigéen ñaa ngi bëgg mucc ci maternité yi te amuñu ay moyen pour pour pour mën leen a jël en en en charge donc c'est ça devient une affaire citoyenne boo xam ne dafa dépasser la personne de Ousmane Sonko. moo tax ñoo ngi ñaan sénégalais yi ñu faire euh, moyens yi nga xam ne moom la leen démocratie jox ñu mettre la pression sur les pouvoirs publics. pour que ñu am une décision définitive sur cette affaire-là pour que le trésor public soit euh, soit rétabli dans ses droits et qu'il soit réparé à à juste titre.